ci turu mbooloo mi euh, mbooloo mbooloo mi nag mooy mbooloom ak faadu Cheikh Ibrahima Fall li taxawu ni bil himmati wal iraada mooy seenu tur ñoo ñëwoon njaareem fekk la fa doon sàkku si ndigal ngir sos mbooloo mi ak léegi nag mu toll ci weer ci la toll mbooloo mi nag ay góor la ak ay jigéen doon mbooloo mu takku li leen tax a jóg mooy jàppalante ci yitte akuk taalibe ak rafetal ak bokk ak sàmm ko mooy nañ la ko waxee woon ci njaareem mooy mbooloo mii ki jiite mbooloo mi nag mu ngi tudd Serigne Fallou Seck moo jiite mbooloo mi ànd kook Serigne Ousmane mii moom sëriñ Cheikh Darou Rahman Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Danam Serigne Blaat ak njabootuk Serigne Cheikh Asfal gépp ca Daarul Minam ak waa kër Cheikh Mamadou Lamine Baara ñoom ñëpp ngi fi teew muy mbooloo mu fasantiku bo bokkuñ fu ñu jóge waaye bi nu dajee mel mel na ni benn lañ ndax noo noo bokk ay wayjur yu góor bokk ay wayjur yu jigéen moo leen boole ngir bëgg koo sàmm nag moo tax ñu sos mbooloo mi bi nu ñëw itam yaatal lañ seen yitte ndax fekkoon nañu fi mbooloo mu ni mel waaye ngir bëgg koo gën a rafetal moo tax ñu sos mbooloo mi ak fas yéene ànd ak ñoom ngir liggéey moo ko waral biñ xalaatee ni itam mënuñoo sos am mbooloo mu toll nii ngir liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall lu toll ne weeru koor wi ak jëf ju réy ji ñu ciy jëf di ko jëfal sëñ Tuubaa ñu ni faaw dinañ ci indi suñu xaddiya ngir barkeelu ca xaddiya jooju nag mu ngi nii sëñ Ousmane di la jox xaddiya jooju nag moo moo moo nekk nii li li li tax ñu def ko nag mooy fas yéene jàpp ci liggéey bi te lii suñu yéene mooy lépp lu ci war ñu def ko mooy yéene mbooloo mépp li ñu fi tax a ñëw daal ñetti mbir rekk la ginnaaw bu gudd fan jàllee ak wér xéewal lañ bëgg bu mën a liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall moo tax a jóg bi waaleykum salaam wa liggéey liggéey liggéey liggéey liggéey liggéey liggéey yëpp. sëriñ bi nee na li ngeen di liggéey lépp. yal nañ ko yal nañ ko jëriñoo. nee na yàlla ngeen ko jëriñoo. koy liggéey. nee na képp kuy liggéey. bëgg liggéey bu baax moo tax. nee na bëgg liggéey bu baax moo tax ngay liggéey. jërëjëf liggéey bi nag. nee na liggéey bi nag. Seex Fall lañ ko liggéey. mu ne Seex Sëriñ Touba. Sëriñ Touba moo koy liggéeyloo Seex Ibra Fall. moo koy liggéeyul si Seex Fall. si am si si si Moustapha Fall itam mu ngi si doy ko liggéeyloo li mu koy liggéeyloo dana ko liggéey bu baax liggéey bu baax mu bu baax nee na sëriñ nee na sëriñ Touba li muy liggéeylu maam Cheikh Ibra Fall la koy liggéeyloo nee na nag yàlla na ko liggéey liggéey bu baax a baax ah, waaw jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ bi mu ni mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm <coughs> ginnaaw loolu sëriñ bi mu ngi leen di nuyu di leen sant te di leen gërëm di ñaan seen ànd bi yàlla na yàgg ndax daayira boo xam ni sëti Cheikh Rafal ñoo ko forme ak sëti sëriñ Touba bu mel nii bariwu fi am ndax sëti Cheikh Rafal kese mën nañoo formé seenub daayira sëti sëriñ Touba ñoom it mën nañoo former seenub ub daayira waaye sëti sëriñ Touba ànd ak sëti Cheikh góor ak jigéen ñoom ñu taxawal ab daayira loolu bëgg a liggéeyal sëriñ bi moo tax ñu def ko bëgg a liggéeyal sëriñ Touba ak Cheikh moo tax ngeen taxawal mbooloo mii loolu yi sëriñ bi xam na ko ànd na ci ak yéen te fu ngeen ci tollu itam dana ci ànd ak yéen ndax ñii nga xam ne bii dañoo sëtu ci Cheikh Ibra dellu sëtu ci sëriñ Touba ñooñu kat bu leen neexoon taxawalub daayira du leen ci fekk ndax ñoom fuñ nekk ñu fekk leen fa waaye nag dañoo xam ni ak taalibe rek a fi nekk liggéeyal sëriñ Touba rekk moo fi nekk kon loolu moo tax ñoom ñii ñu dajaloo taxawal. seenub daayira ngir liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Rafal te ñoom ñii su leen neexoon dañuy toog fañ nekk ñu formel lay ay daayira di leen ko indil waaye xam ngeen ni yëf yi jëf moo koy maye loolu moo tax ngeen taxaw ci jëfal Serigne Touba ak Cheikh Rafal loolu sëriñ bi nee na ànd na ci ak yéen fu ngeen ci toll mi ngi ci seen kanam mi ngi ci seen ginnaaw mi ngi ñaan itam ànd bii yàll na yàgg yàll na yokk te itam nun ñii nga xam ne bii ñoo ngi yéen a yem nun ci lañ bokk bu ñëwee bokk ci ci lañ bokk buñ ñëwut itam ci lañ bokk kon nag na ngeen xam ne ñun itam ñoo ngi ci seen kanam ñoo ngi ci seen ginnaaw te daayira bi itam sëriñ bi dafay digle ni képp koo xam ne kii sëtub Cheikh nga ak képp koo xam ne kii sëtub sëriñ Touba nga te Cheikh di sa maam am nga ndigalul bokk ci daayira bi ndax kanam dong la jëm lu baax nag la koy yokk moo gën la koy wàññi kon nag mbooloo mii bu yokkoo lu ñu bëgg ci réew mi danañ ko am di ngeen ko am ndax seen maam moo yor réew mi seen maam moo liggéey réew mi seen maam moo defar réew mi kon nag yéen ñii mën ngeen a dem ba réew mi tegu ci seen loxo waaw ndax ñu jàng ngi fi ñu ami diplôme ngi fi kon ñooñu war nañoo mën a dem ba réew mi tegu ci seen loxo te mbooloo mi bu yokkoo lu ngeen bëgg dana leen fekk si kon sëriñ baa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér góor ak jigéen ku fi indi aajo yàlla na faju ku fi indi jàngoro yàlla na faju sëriñ baa ngi koy ñaan di leen ko ñaanal sëriñ bi nag bu sañoon mooy waxal boppam ngeen di dégg waaye wax ji moo neexul lool waaye bu sañoon yéen ñii toog ci kanamam day wax ngeen di dégg kon sëriñ baa ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal lii yàlla na yokk yàlla na jëm kanam ci barke Cheikh Ibra barke sëñ am di mii toog li ngeen ciy wut daal yàlla na ngeen ko am barke Cheikh Ibra Fall jërë ngeen jëf ma rek maa ngi jégalu ci kanam waaw noonu la noonu la waaw xam naa ab ab lay doon mhm. ñu war koo leeral ndax euh, mm-hmm. dafa mel dafa am daayir bu fi bu fi newoon di surtout maam Cheikh Raye ñu koy wax jazbul murid mm-hmm. euh, xaj na bi lii di sosoot ñoom réerewuñ ci ak ñoom ñu ngi ciy waxtaan mm-hmm. ndax wax seytaane day yàq rumeur yooyu mi ngi dem day aksi ci sëriñ te ñoom ñëpp defar rek a leen tax a jóg ñii ay tuut tànk lañ lu yëkkati seen kër maam gi rek lañ soxla waa jazbul murid it ay tuut tànk lañ lu yëkkati liggéeyab Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Raye Fall moo leen tax a jóg kon liggéey bi benn la ginnaaw ñuy waxtaan nag loolu moom ak sant yàlla la nañ nañ nañ ci am rafet njot te bàyyi wax ju wax ju sew ji amul njariñ ñu bokk fu ñu jëm te war koo defar dañoo war di diisoo di waxtaan te xam ne fa ñu jëm ak réeroo wuru ci am loolu nag si Abdou Fatah mi mi ngi ciy dox bu baax a baax kii kii Seck Moustapha Seck woo na ma ci démb waxtaan nañ ci waaye Jazbul Murid it ñi ci ñi ma ci jot a waxal yi waxtaan nañ ci ñoom amuñu ci dara loo xam ne nii nu mu tuddatiwul waaye ginnaaw war a liggéey nañ ci gën di waxtaan ndax jëf ji benn la rek te fi ñu koy jëlee ak fi ñu koy sotti benn la waaye nag nit moom boo bëggute a jëw bu ñim intéressé toogee da nga koy wax man noonu laay waxee moo tax ma <laughs> yëkkati kàdd yi maa ngi jégalu ci kàddu yi baax a baax a baax ngir leeral ilaha illallah salaamaaleykum wa ngi nuyu mbokki taalibe yépp di leen siyaara di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ko ñaanal fan wu guddam gën doon keemaan ci keemaan sëñ Tuwaay di ñaanal sëñ Amdi Modou Mbenda sun borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naal ci liggéeyab maamam bii mu yeggale ko ci sagom gannaaw loolu may ziar mbokki taalibe yëpp di am mbégte bu baax ci lii nga xamante ni moo fi am tey jii muy ab liggéey boo xam ne njaboot ak maam Cheikh Ibrahima Fall ànd ko ak njabootuk Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba ñoo ko amal fa yéene liggéeyal seen maam eh, ci toolub sëriñ Touba bi jaarale ko ci buntub maam Cheikh Ibrahima Fall làmp kon loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax tey ndokkeel mbokki taalibe yépp kàddu yi nag du mën a gudd xanaa kàddu yi sant lay doon rek ak kàddu yi soññe ndax jëf ju ne day tungom seere te lii ñu doon ci seede bët bi ñuy xoole nag yell na ñu yëkkati ay kàddu seedeel mbokki taalibe yépp jëf ji nga xam ne jëf nañ ko ci liggéey boo xam ne ci diir bu gàtt lañ ko amal kon noo ngi leen ciy sant di leen ndokkeel di ñaan sëriñ bi nga xam ne moo am fay yàlla na leen fayal boppam di ñaan liggéey bi yàlla na ko maam nangu te nu ko te wàcce ko ci mbooleem umma islamique bi yépp di dogal ngante ñi nga xam ne façon nañoo yéenee teew te suñ boroom def mënuñoo teew mel ne dañ leen di teewaaleel rek ndax ñun murit moom dañuy doxee noo xam ne fu kenn teew rek mën ngaa yóbbaale ñi ci des kon ñooñu ñoo ngi leen di teewaaleel te di leen ñaanal bu baax beneen yoon ñu am kàttanu mën koo teewee kon daal kàddu yi kàddu yi soññe la rek di wax ñu gën a góorlu bu baax ci liggéey bi ndax liggéey bu tool nii nga yëkkati ko ci diir bu gàtt indi ko ci xalif général de Baye Fall mu sant ko gërëm ko kon war ngaa góor góorlu bu baax te xam ne ab soññi rek la maa ngi soññ sama bopp tey soññi mbokki taalibe yëpp nu gën a góorlu te xam ne liggéey sëñ bi moom la Cheikh Ibra waxoon rek ku ci yónni sa doom bu ñibbee di sa di sa wayjur ku ci yónni sa soxna bu dellusee di sa borom kër ku ci yónni sa taalibe bu dellusee di sa sëriñ kon ñu gën a góorgóorlu bu baax kàddu yi nag dañ ko doon ubbee rek ñu jox sëñ di mu leeral li nga xamante ni am na fi ci liggéey bi noo ngi jégaluwaat bu baax kaddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu afdalul ziar wa ñoo ngi jaar suñu kilifa yëpp rek suñu ci jiitalee alu mbakk yi day mën a mate fépp di tuub kaddu yi ay ndigal la guñ sañul bañ suñu yëkkati kàddu ci kanamu suñuy borom moom xam nga ni baaxuwuñ ko te moomuñu ko ay ndigal kàttan la goo xam ne suñ ko jëfandikoo dinañ ko mën a jëfee kon euh, ni ko sëñ bi waxee daa mati sëkk la si liñ si mën a wéeru ngir leeral ko ci rek weesuwul xamal mbooloo mi ni sëriñ bi sant nañu Cheikh Ibrahima Fall mi ñu fekk tey ngir jébbal ko jëf ji sant na mbooloo mi gërëm na leen kàddu yi nga xam ne moom la yónnee ci ñun ñun ñëpp dégg nañ ko kàddu yi suñ ngunda toftal ñun ñëpp dégg nañ ko loolee mate na si ñun ak soññe ako jañ goo xam ne nii jañ jëmale ci war a feddali suñu pas-pas ginnaaw nag mbooloo mi nga xam ne ñoo woote woo Ahdaafu Cheikh Ibrahima Fall di fas yéene lëkkale sëtu Cheikh Ibrahima Fall yëpp ak mbooloo ni ci nit buntoo ni ci nit bokkoo ak nu mu mën di sant eh, na càllareem yegg ba ci Cheikh Ibrahima Fall loolee moom mooy wooteek mbooloo mi biñ ko soseeg léegi nag ci giiru gu weer da war a toll. bañ yeggee sëriñ bi njaareem xamal ko ndigal xamal ko yitte yi mu jox ñu ci ndigal jox ñu tur ñu ànd liggéey woowee biñ siggee ci weeru koor lañ jëm ndax comme que ginnaaw ñoo woote woo ànd nekk benn jokk mbokk xamante dimbalante ci yitte ak taalibe ànd liggéeyal sëriñ bi kon suñu wëlbati ko weeru koor nekk suñ kanam mënuñoo def lu dëggal suñu kàddu yooyu loolu nag moo waral yitte yi moo waral jëf ji tey mbooloo mi ci giir woowu lañ jaayante génn li nekk seen i poos ginnaaw ni jamono xatee woon ku ci nekk am nga ay yitte ndax am nga foo samp say leer di fa jëf waaye ak jaawante ak bëgg bokk benn bëgg bi mooy bëgg ko seen maam fa yéene koo liggéeyal ci lañ euh, dajale lañ am muy sept cent onze mille cent francs loolee nag euh, doon loo xam ne moo jóge ci ñaq murid di jóge seeni poos ñu jébbal ko sëriñ bi ci jaarale ko ci njiitug sëñ Abdou Fatah Mbacke ak sëriñ Ousmane Mbacke ñu jébbal ko sëriñ bi sëriñ bi jot ko sant ñu soññu ñu ndax yaakaar naa soññ yooyu jarul si jàllaat dégg nañ ko te dina jàll ci jotaay wi suñ gudda tamit feddali na ak cant ak wan ñu yoon kon li li solo si mooy wéeraat suñuy kàddu ci wax sëñ bi rek ñu xam li ñu bokk xam li ñu tax a jóg feddali suñuy laxasaay te xam ne am na ay yitte yu nekk suñu kanam yooyee nag des ko leeral jëm jamono des ko leeral suñ jugee fii li solo solo ci jotaay bi mooy ñu xam ne sëriñ bi sant nañu nangul nañu jëf ji te jëf juñ nangu rek lañ si bëggoon kon yàlla nañ si bokk dajeek ngërëmu sëriñ bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa